leen nuyu di leen dokkeel di leen euh, jaajëfal si topp ngeen ñu topp tey nag ñu dalal ki nga xam ne mooy Seyda Yousra Mamoun Niass di doom si Cheikh Mouhamadul Mamoun sheikh Ibrahim Niass mi nga xam ne moo taxawaloon parti bii di Rassemblement pour le Peuple RP gannaawam doomam Cheikh Mouhamadul Mansour Cheikh Mouhamadul Mamoun Cheikh Ibrahim Niass wutu woon ko si gannaaw bu mu fi bàyyeekoo bureau politique élargi daje tabb ki nga xam ne moom mooy Seyda Yousra mi nga xam ne moom mooy première servitrice su bi léegi ñu am moom waxtaan lu jëm ci historique parti bi ci moom jaar-jaaram njàngam fan la dalee ak fi mu yem mu wax ñu tamit ci li nga xam ne mooy post yu mu occupé actuellement waxtaan ak ñun ci ni mu gisee Sénégal gannaaw bi nga xam ne tàbb nañ njiit yu bees waxtaan ak ñun tamit ci parti politique bi ni mu ko fas yéene taxawee yaatal ko. ni mu gisee taxawaayu ndaw ñi ci parti politique bi ni mu gisee tamit jigéen ñi naka lañ war a taxawee ci parti politique en général sénégalais yi tamit naka lañu war a taxawee ba nga xam ne li mu bëgg ci Sénégal yàlla dimbale ko ci mu àggal ko mooy mission boo xam ne waajuram tàmbale woon na ko ak magam bu góor ñu lu ki nga xam ne mooy madame Yusra Mamoun ci ci émission bi nga xam ne amal nañ ko. ci Serigne Mamoun Niass ak ci Nafi Diaby maa ngi juddu ci Dakar. maa ngi tàmbalee sama jàng avant école primaire ci daara daara Seydou fii ci Dakar mu jógee foofu jàngee naa ci daara naar bi kaw la gannaaw loolu dem naa Mauritanie aussi jàngee naa fa alxuraan def naa fa ñeenti at ma ñibbisee nag ci la ma sama papa may permission pour ma dem jàngi français ci la dooree tàmbali en 2002 ci laa commencé jàng français ba may dem France boobu illettré la woon Euh, je ne savais ni lire ni écrire En France def classe non francophone une classe de initiation un an Pour moi, ci ci lañ test pour dem classe quatrième 4 quatrième BFM ma def ñetti at lycée am bac après ci la commencé comptabilité gestion cursus expertise comptable ci laa nekkoon ba ni ma terminé master bi ma def stage bi et cetera ci laa ñibbi si Sénégal. parti bii di rassemblement pour le peuple ñu ngi ko créer 2002 ci Diourbel le feu Serigne Mamoune Niass moo ko créé woon euh, gannaaw ba mu ko yoree ba mille 2011 28 octobre 2011 ba mu génnee àdduna man euh, Mansour Niass muy sama mag moom lañ ko joxoon mu yore ko ba ni mu génnee àdduna le 14 février 2021. Euh, depuis bob nak administrateur ou parti bi mom mon nekkone ki nga xamné ne la texte désigné pour mu reprendre gestion ou parti bi après décès wu Mansour Niass bob ba léegi euh, nommé wuñ kenn ci mu nekk njit ci parti bi euh, bureau politique nak élargi mon réunir gannaaw process bu gudd bo xamné ne duré na ñaari at processus bo xamné ne ouverture pour candidature gannaaw lolu amoon na ñaari candidat am euh, bureau ad hoc boo xam ne euh, commission boo xam ne dañ ko créé woon pour mu càmbar candidature yooyu noonu gannaaw loolu ci la bureau politique réunir le 27 avril 2024 pour jël décision bi loolu mooy waree ne processus bu gudd la bu duré ñaari at avant ñuy aboutir ci ci nomination bi waaw maa ngi liggéey ci finance d'abord euh, ci Afrique on peut dire parce que maa ngi ay projet yoo xam ne mi ngi Congo ak yeneen dëkk yoo xam ci Afrique mais maa ngi yëngu ci mine ñu gën ma cee xam depuis juróomi at juróom Ben at maa qui ciy yëngu ay projet mine ak ay projet pétrolier au xam ne maa ngi en tant que financier mangi gungé aussi ay entreprise ci walu gestion financière ak suñu ay investisseurs yo xamné dañuy ñëw investir fi Sénégal

wax dëgg yàlla ñu gisante ak xalifa général bi nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadul Mahi yàlla def mu nekk koo xam ne moom la ma sama baay bàyyile euh, ma demoon sàkku ñaan ci moom en tant que baay mais sàkku ñaan ci moom tamit en tant que chef de parti expliquer ko décision bi nan lañ arrivé ba fii mu wax ñu wax yoo xam ne wax dëgg yàlla may nañu pour ñu gën a góorgóorlu parce que ñëpp xam nañ engagement am auprès de la jeunesse mu wan ñu tamit ne ñu en tant que ndaw am na yaakaar loolu mu nekk loo xam ne dafa nekk motif bu fort ci ñun gannaaw loolu gisante nañu ak imam meddina Baye gisante nañ ak porte paralu meddina Baye ak ay kilifa yu bari yoo xam ne wëllëre lañu woon ci suñ papa ay membre fondateur lañ ci parti bi fekkee nañ jaar-jaaru Serigne Mamoun ci politique jusqu'à création u parti bi donc loolu jagle la woon ci ñun ñu dem taataan seen xalaat ci parti bi wax ñu démbu parti bi wax ñu parti bi li ko taxoon sosu Euh, dénk ñu tamit ay kàddu yoo xam ne war nañ cee mën a góor góorlu ba yóbbu parti bi fi nga xam ne mooy vision bi nga xam ne moo ko taxoon juddu parti bi gannaaw situation bi nga xam ne dund na ko ci ñetti at yi mooy situation léthargie bi nga xam ne dafa juróon blocage lim gën a soxla mooy nit koo xam ne dafay wàcc ci base bi base bi mooy dem xool existant bi mooy li nga xam ne fekk nañ ko fi ñu jéem a xool nan lañ koy dooleel nan lañ koy dundalaat. gannaaw loolu Serigne Mamoun euh, su ma nee réunir famille Serigne Mamoun famille rassemblement pour le peuple euh, ñëpp xam nañ ne parti boo xam ne la amoon na fi doole ci temps parti boo xam ne la nit ñi ci nekkoon dem nañ ba ci biir gisuñ seen bopp xëy nañ ci parti bi ñu toog am na ci ñoo xam ne génnoon nañ te am nañ yaakaar ne suñ waxaatee ak ñoom danañ dellu siwaat ci parti bi loolu mooy suñu premier objectif mooy fexe ba nit ñi nga xam ne. dañoo génn ci partie bi ñu dellu siwaat nit ñi nga xam ne dañoo dem ba gisatul luñ xam ñu toog ñu teg ci seen loxo loo xam ne dinañ ñëw àndaat ñun ci liggéey bi suñ ko defee rek gëm naa ne déjà dinañ am base boo xam ne dinañ ci mën a liggéey gannaaw loolu en tant que jeune en tant que femme attirer ay profil yoo xam ne dinañ gis seen bopp ci man ay profilu cadre ay borom xam ay nit ñoo xam ne dinañ ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi ay jeunes yoo xam ne dinañ porter projet bi ñu yóbbu ko foo xam ne ëllëg dina nekk njëriñ ci réew mi ay jeunes yoo xam ne dinañ gis seen bopp ci valeur yi nga xam ne moo tax a juddu parti bi parce que parti bi dafa am ay valeur yu fort yoo xam ne am na sax euh, existant boo xam ne mi ngi continuer ci société bi malgré que suñ parti bi yënguwut mais gis nañ fi ay nit ñu di leen oowee les serviteurs loolu départ bi ci suñ parti bi la Serigne Mamoun dafa créer parti boo xam ne bañ na ko ba ni ci nekk yëpp ay serviteurs lañ mu oowee boppam premier serviteur loolu message bu fort la gëm naa ne daal vision wu parti bi suñ ko décliner ba ñëpp jot ci ñu bëri dinañ nangoo ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi nga xam ne mooy redinamisation parti bi gannaaw loolu développement dafa nekk mbir mu am solo ci parti bi bokk ci ay valeur am loo xam ne la sëriñ bi def ci defoon lu am yaakaar def defoon ci yaakaar bu bëri ba defoon ci mutuelle lu dekkal yaakaar mutuelle boobu doon fonctionner microfinance bi doon it aider jigéen ñi ak jeunes yi mu nekk loo ne bëgg nañ cee taxaw bu baax pour mu parti en tant que profil bi ñu am ak liñ en tant que financier gunge nit ñi ci entrepreneuriat jàng comment taxawal ay projet nit ñi nga ne am nañ projet ñu bañ credo ne ko apporter en tant que vision en tant que gunge ci jeunes yi ak ci population sénégalaise situation économique bi fim toll actuellement ak géopolitique mondiale ñi ngi population sénégalaise bi ci décision bi nga xam ne jël nañ ko ay weer ci gannaaw jël nañ ko ci calme ci dalm ak ak beaucoup de responsabilité ñi ngi ci am fierté bu baax wax dëgg yàlla xam ne suñ niveau suñ niveau xalaat ak suñ niveau dal ak suñ niveau respect ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi wax dëgg yàlla respecté bu baax processus électoral bi ni mu demee ñi ngi félicité président bu bees bi di ko ñaanal yàlla tamit ndax tey mooy suñ njiit su su doxalee ñun ñëpp la doxal ñu ngi koy ñaanal yàlla projet yi nga xam ne am na ko pour Sénégal yàlla dimbale ko mu motal ko euh, gannaaw loolu ñi ngi teg ci loxo sénégalais yi ne euh, changement lañu oote bépp changement processus la processus nag foo ko dégg rek du nekk loo xam ne dafa gaaw donc il faut que tamit ñu may leen benn temps d'adaptation boo xam ne ñun dinañ étudier décision yi nga xam ne ñoom jël nañ ko ak mbir yi nga xam ne ñi ngi koy doxal en patience bi daal du loolu moo ñuy dimbali ci changement du loolu moo leen di dimbali ñoom tamit dafa fekk nag dañoo dañoo fekk ci situation boo xam ne ñun ñëpp dañoo nekk ci attente changement boo xam ne dafay rapide dafay bouleverser suñ vie mais nañ conscient ñun ñëpp ne processus su changement mus te nekk lu gaaw te munta commencé gaaw ci ñun waaw ñuy ñaan yàlla ñu gunge leen ñoom ñëpp ci décision bi nga xam ne am nañ ko bëgg-bëgg yi nga xam ne am nañ ko ci réew mi di ñaan yàlla ñu gunge leen ba ñu réussir bu baax a baax te am nañ ci yaakaar wax dëgg yàlla di ñaan yàlla tamit euh, euh, sénégalais yi fi nga li nga xam ne mooy seen mbébét ci Sénégal ak li nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg pour que suñ dëkk bi àgg foofu ñu gis ko ci alternance générationnelle bi nga xam ne moo moo commencé moo tàmbali depuis nomination wu gouvernement bu bees bi wax dëgg yàlla pour le moment décision yi ñu jot a jël ñi ngi leen ci ñaanal yàlla ñoom ñëpp ñu am ci réussite bu baax ñun tamit ñi ngi pare apporter suñ suñ vision par rapport à ça parce que man li ma gëm mooy que ne euh, àndoowu ñëpp ci développement au Sénégal mooy indi changement dëgg-dëgg bi nga xam ne moom la population bi soxla. ndono mag yi moom suñ ko waxee rek euh, mag ñi yépp la fa am nañ yéene dem ci kër diine yépp am nañ yéene dem ci église bi am nañ yéene dem déglu population bi yépp ak fuñ munti nekk xam lan mooy seen bëgg-bëgg ak lan lañ bëgg ñu gën leen cee taxaw donc ay tournée nationale yoo xam ne prévoir nañ ko ci 14 régions sénégalais ak 46 départements yi ñi ngi koy organiser euh, dinañ ci dem incha allah te ñi ngi ñaan yàlla ni ñu sàkkoo ñaan ci suñ kilifa yi nekk Medina Baye jot ko ñu amee ko ndigal ci Sénégal bi yépp euh, la jeunesse de ñoom ñëpp xam nañ ne jeunesse moo yore réew moo yore avenir u réew mais quelle jeunesse loolu mooy loolu mooy message bi li wax daal mooy une jeunesse consciente une jeunesse éduquée une jeunesse boo xam ne xam na fi mu bëgg xam na fi mu jëm fas yéene naa sacrifier boppam tey pour ëllëgu demain man li ma gëm mooy jeunesse boo xam ne ne fas yéene tey mu naqadi ci moom mais mu neex suba ci ay doomam façon jeunesse boobu laay oo attirer seen attention ci ne suñu réew mi ñun ñoo ko mën a defar liñ koy defaree nag du dañuy tàmbali rek bëgg mu neex bépp changement boo gis ak lépp loo gis neexut femmes yi ñu ngi leen di oo ci ne jàmbaar bi nekk ci seen kër yi ñu ñëw àndoo ko ak ñun ci politique pour ñu mun koo gën a développer décliner ci ci kër yëpp parce que femme ñoo yore éducation wu ak avenir xale yi man daal li mu bëgg mooy ñu bàyyi xel ci suñ avenir ëllëg au-delà tey maanaam suñu avenir tey demb lañ ko waroon préparer mais suñu suba tey lañ koy préparer maa ngi attirer attention wu jeunes yooyu femmes yooyu population sénégalaise yi nga xam ne soucier nañ ci avenir Sénégal ëllëg ñu àndoo liggéey liggéey boo xam ne ëllëgu Sénégal dina nekk loo xam ne xam nañ ne processus boo xam ne la commencé nañ ko tey dana jur fruit demain waaye luñ commencé wut rek ñoo espérer ne suba dina jur changement boobu yàlla dimbale nañu ba am nañ gouvernement bu bees boo xam ne àdduna ci loolu nañ leen ànd à tous les niveaux ñu ànd apporter changement boobu nga xam ne ëllëg dana def indi changement radical boo xam ne dina yóbbu suñu réew ci beneen niveau. noonu gannaaw bi nga xam ne dalal na ki nga xam ne moom mooy madame yusra mamoun nias ci li nga xamne leral ñu ko leral ko askan wi ñu leen jox rendez-vous ci yeneeni programme lepp ci jëm ci walu politique assalamu alaykum